internet Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu waat di leen jaajëfala ah, di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant comme comme niñ koy defee saa su nekk nee naa leen yéen a ngi ci seen biir émission célébrité sport célébrité sport nag nee naa doonatul lu ma leen di présenté parce que yaakaar naan tout le temps yéen a ngi toog di ka xaar tey nag ma dalal ndaanaan loo xamante si macha allah kenn dootu ko présenté ci coté bi nga xamante ni ci la nekk di yëngu su ma neexee ni ko influenceuse su ma neexee ni ko actrice dama koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet Sénégal 7 ngoone lañ koy wax maa ngi lay nuyu di la ziar sister Fafa euh, delloo naa la nuyu bi bu baax di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la Sénégal 7. tey boo ñu doon wax sa bopp tey kan moom mooy Ngoné. je suis pas forte di wax si sama bopp mais Ngoné benn benn bu dee Ngoné ngay laajte Ngoné benn actrice la bu nekk famille sénégalaise. nekk ci jigéen boo xamante ni moom elle est soumise gorom sonal ko bu nekk rakk maarloo loolooy Ngoné. loolu dafa yomb waaye loolu yomb na trop yu bari xam la ci côté animation ñi xamee la aussi tamit ci côté yi nga xam te ne moom mooy cinéma bi tey avant yooyu yëpp kan mooy Ngoné Ngoné fan la jaar après étudier après ci yan business nekk yan liggéey la jaar ba egsi fi muy egsi tey. mami euh, benn benn passionné de la télé le de base je voulais pas faire faire euh, animation moom mosu nekk sama loo xamante ne moom laa bëgg bu may nekk école sax loolu laa doon di def di defay ay animation di bind ay ay série passer yi di bind ay émission su ma ñëwee sama kër di toppandoo di animer affaire yooyu noonu mais xam nga rek yàlla moom bu la woyee si dara ay série j'ai même pas fait de casting de base commencé na ak Marodi laa njëkk a def yàgg na nag benn sketch man la woon ak ñoom pata après ça dama toog benn jour rek waa Pikine ñu boole ma ak ñoom may leen di nuyu de passage ñoom ñi nga xamante ñoo tax ñëpp xam ma monsieur Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu Ndeyloo sama yaay sama xarit ñoom ñoo ma woo voilà ma def sama sama profil neex leen man tam ma def ñoom ak seen jàppale rek ma dugg si si si si Pikini production. Mhm. wax nga ko léegi si say biir wax euh, bëggoon nga li nga xam te ne moom mooy bind ay émission ay animation ay yaam a gën a xam loolu tey moo la poussé tey ba nga dugg ci li nga xamante ne si moom mooy métier animation parce que su ma juumulee yaakaar naa ne jaar nga ci télé avant ngay ñëw ci li nga xamante ne si moom mooy euh, téléfilm. non téléfilm moo jiit en fait de base famille sénégalaise moo tijji lépp. si euh, j'étais à ITV ITV laa nekkoon may nuy di jëpadros bu baax sama pap bu baax boobu nga xamante ne bi ma ñëwee moo ma yaatal dalal ma fexe ba métier bi yomb ci man macha allah ba euh, Pikine la tamit ba tey rek ñoom ñoo ma booleeg waa ITV ma dem fa macha allah liggéey bi rafet. Mhm. kon kon kon euh, pic théâtre bi wala téléfilm bi moo jiitu li nga xamante ne si mooy animation. en fait animation bi moo nekkoon passion de base bi quoi mhm. mais lépp rek. même même chose la animation téléfilm yooyu yëpp ñoo bokk ay mbir. mais ñu gis sax wax nga ko jaar nga fi nga xamante ne si moom mooy ITV e doon def animation lan moo waral euh, jóge bi wala yaa ngi fa ba léegi wala nu mu demee noonu comme ça mu leer ci bopp nit yi. non jóge ma fa très nag les gens ma disent. ngoonee lu tax gisatuñ la ITV e déjà émission boobu sama Sénégal amatul parce que ñoom dañ nekk di dafa tombé woon ak ma waroon dem deuxième saison famille sénégalaise donc mënu woon boole ñaar yëpp loolu rek moo tax mais TV ITV e sama famille la sama kër la. kon daal euh, tournage deuxième saison li nga xamante ne si moom mooy famille sénégalais moo waraloon nga bastaay euh, li nga xamante ne si moom mooy animation bi est-ce nañ mën nañ xaaraat ngoone ci animation bi. non maa ngi ñëw <laughs> xaar leen ma maa ngi ñëw <laughs> ngi ñëw damay ñëw def li ngay def nii maa ngi ñëw xaar leen ma. <laughs> d'accord léegi ñu dugg ci li nga xamante ne si moom mooy euh, téléfilm bi wax nga ko nga mës jaar fi nga xam moom mooy Marodi su dee juumu ma. léegi nga jógee fa nekk fi nga xamante ne si moom mooy Pikini production sa relation ak waa Pikini production ndaka la demee. Pikini sama famille la ñun ñu ngi entretenir de très bonnes relations ñun ñëpp benn lañ Pikini c'est une famille famille ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun foofu ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ voilà Aliou Ndiaye suñu papa la daf ñu téye comme ay doomam vraiment yor ñu nag vraiment di ñu fay. moo tax instant bii ku ñu gis jàpp di ñoo ngeex lu ne waaw vraiment ñoo ngeeg lu ne parce que Aliou Ndiaye daf ñu téye téye bu rafet yor ñu yor bu rafet waa vraiment vraiment yor ñu yor bu rafet comme ay doomam vraiment ñu ngi koy nuyu bu baax a baax lépp nu ñu mel rek tey moom moom moo tax waaw ñun tamit euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax au passage parce que lu mu bon bon ndeysaan jaar nañ fa suñu jaay la sama sama sama sœur sama cousine Ndeye Lo maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax mais mais mais lan moo la booleek ñi nga xamante ne si ñoom mooy waa Pikine dañ la gis wala casting wala dañ doon def casting nga gis ko sentir ci sa bopp dem wala dañ la contacter wala relation bi ak Pikine production fan la jógee. non du du par casting. Mm-hmm. sama benn mag bu baax a baax baax sama jëkkër la Cheikh Cheikh Tidiane. Chéri Diakher moom moom moom ñoom ñoo soxla woon benn profil teint noir après Cheikh Tidiane proposé ma leen ñoom tamit ñu gis sama photo mu neex leen après ñu gisante toog waxtaan ma doy leen ñu jël ma. Mhm. ngi fa. maa ngi fa ba tey fa laa ne ba tey mhm. maa ngi Pikine Mhm. mais gis nañu li nga xamante ne si moom mooy famille sénégalaise yaakaar naa su dee juum ma bokk na ci li nga xamante ne si moom nga njëkk a joué euh, production wala am na lu jiitu loolu. famille sénégalaise moom laa njëkk a joué Pikini. Mhm. Mhm. moom moom moo tax man ma xamante ak waa Pikini. biñ la woowee ni la wax la li nga xamante ne si moom mooy euh, série sénégalais bi naka nga ko gisee. waaw c'était quelque chose de très naturel. vu que man ju genre tout ça sama ma la animation théâtre yëpp la. ñu dem normal dem tournage c'était pas c'était pas difficile parce que ñoom dañu yaatu dañ lay yaatal suñu réalisateur yi jàppale la parce que def théâtre te jàngoo ko dafa metti ñi nga xamante ni dañuy jaase arco yi rampe ñooñu ñoom ñooy ñoom ñoo nekk ci métier bi ñoom ñoo ñoom ñoo ko mën ñoom ñoo ko xam mais ñun ñi nga xamante ni dañoo xëy rek dugg ci bu ñu amul jàppalewul du dem donc suñu réalisateur jàppale ñu bu baax a baax a baax mu monsieur Ndiaye noonu am patience moo tax ñu dem ba role bi ñu koy réussir à la perfection. d'accord foofu dinaa fi ñëw parce que wax nga ko léegi say biir biiri wax euh, daanaka léegi ñii ñi nga xam te ñoo nekk si téléfilm yi euh, doonul loo xam te ne luñ jàng la en fait parce que beaucoup téléfilm dañuy téléfilm téléfilm lu théâtre comprendre nga wax nga ko léegi am na loo xam te soo ko jàngul pour nga man ko day man na sax bañ bañ a bañ a difficile mais il fallait que ñu jàngal la yenn nga mën ko rôle bi nga xam te ne jox nañ la ko ci famille sénégalais biñ la ko bi biñ la waxee nga war ko gérer ndaka la ndaka nga dundee réew sa goro sonal la. non xam nga début bi y avait pas de goro au fur et à mesure la deuxième saison bi laa nekk di dund ak sama goro. Mhm. début bi métti la méttiwul parce que famille sénégalaise suñ une famille sénégalaise loo xamante ni réalité la une histoire de tous les jours bu bu dul lu métti li di lu neex li mhm. yow ni ngay dundee ak sa famille moom ngay dundee ak te ñun foofu dañuy jàppalante donc du woon lu difficile trop franchement en en plus tamit ma wax la si benn point am na ñoo xamante ni jànguñu ko mais yàlla may na leen doom boo xamante ni ñu defee day mel ni dañ kaa jàng. Mhm. mais doon noonu loo xam te ne wax nga ko nekkul lu difficile parce que nag euh, avant ngay sëy da nga nekkoon sa kër mag woon na sa kër papa sa kër yaay di xàppi di def lu neex dundoo benn stress mais ñu muur la nga sëy sa goro takk la rek takkal la ay pot du la may jaamu lépp soxna ba toor man tamit ma nangu rek di sëy ma nangu rek waaw dañuy wane ni rek foofu noonu que àdduna man ci ci li ma jàngat si role bi ma joué je dirais su ma doon sëy du ma def noonu mm-hmm. mais tamit su ko doon sëy di def noonu dinaa la naaw trop ñee la mm-hmm. parce que da yombale sa jëkkër xëcc entre yaay ak doom dafa metti mm-hmm. jëkkër kenn mënu ko choisir loo entre yaay ak doom parfois soo xamee ni que yow kër gi nga nekk sax sa yaay bi nga jur de dalay def ay yenn yi maanaam lépp pour yar la rek yooyu da ngay nangu daal te xam ne àdduna ku muñ di nga muñ. Mhm, loolu la rek. bi la njëkkee teg caméra yi ni la ay ca léegi nag yaa ci des yow la ñuy xaar jour boobu noonu. <laughs> waaw c'était naturel xam man moom man damaa bëgg ay ay man xam nga ay yoo xam ne da ngay commencé ay Fosco. nekk ay présidente féminine Fosco bokk Fosco ñeme taxaw podium am na yoo xamante ni. su amee du ci torop depuis école nga ko commencé ñu xam la man je pense que bi may nekk école sax la ma nit ñi gënoon xam ka léegi man bi may nekk école dama saboon man dama saboon torop hmm. euh, xamante ne moom mooy série bi série bi nga xamante ne moom mooy famille sénégalais wax dëgg yàlla mu doon loo xamante ne si lu sénégalais yëpp bëgg la parce que naturel bi wax nañ ko ak suñuy aada ak suñuy culture cosaan yi nga xamante ne si moom la ñuy dund ci série bi loolu rek lañ ci doon gis lan moo la gën a neex ci série bi ak ban euh, épisode moo la gën a neex ci série bi ah, man série bi épisode bi nga xam moom si gën a marqué saison une la loolu Euh, mooy diggante yaay ak doom bi marieto ak Bigué di foot fóot loo ñëw mej Marietou Bigué nu mu jugee nu nu xolu xolu doom mu ne sot si yaay maar nekk papaam ba mu joree ko mu saaga ko ne da koy jam loolu noonu dafa fooroon en fait loolu dafa déjà épisode boobu dafa metti woon rek bi ñu koy tourné parce que dafa naturel woon ngay gis daw escalier yi wàcc def ni def ni li ma gën a neex ci famille sénégalaise aussi mooy en fait royuñu occidentaux yi les gens ils famille bi série bi dafa yombu lii su chaque jour soxna bateau di gagné famille sénégalaise Aliou Ndiaye li muy bind réalité la monsieur Ndiaye lu mu bind rek parce que da ko dund wala mu gis ko wala mu xam ko ko dund moo tax mu bind ko ñun Sénégal fii jigéen ñi sëy dañuy dund lu metti de Mariétou li muy dund am na ñuy dundu piir moo tax jigéen ñi sëy dañ leen a war a jàppale góor ñi aussi ñu xam ne jigéen ñi ñu ngi sonn ci kër yi ah, ñu ngi sonn mhm. mais mais dem nañ ba benn instant euh, ngoone gars yëpp découragé nag épisode bi te euh, film bi dem rek taw a arrêté deuxième saison bi di dem rek taw a arrêté ngeen gis yéen bu ngeen gis yéen commentaires yi négatif yi non dafa war a jeex yaa ma gën a xam ji koy sénégalais non dafa war a jeex lii dafa bari lii dafa gudd te teewul <laughs> dañ koy seetaan. <laughs> waaw man ñun loolu suñu jikkoo la ñun dañ koo dañ koo làmboo ñun Sénégal dañoo mën a wax dañoo làmboo wax lan moo si am bi mu jeexee lan lañ ñuy def message kenn lay amaat. bi muy jeex ñoom bugguñu bi muy jeex ñoom xam nañ séri bi ni que lii nii lii moo logique fii la egg si kon xam lan moo ñu lan lañu lan moo ñu war ñun sénégalais mooy xaar ak di di patience lañ amul moom waaw ñun amuñu patience mais loolu ñun duñu metti xam lan moo tax parce que ñun bu dul sax séri bi ñun entre sénégalais noonu la ñu mel ñun ñeme nañu wax amuñu patience mën nañu juger te duñu xam yëf yi fan la jëm loolu mooy suñu jikko dañ ko nangu rek <laughs> macha allah Euh, bu loolu weesoo ñu gis ki nga xamante ne si moom mooy mareetu euh, daal di am li nga xamante ni moom mooy monsieur macha allah tey soo amoon conseil boo koy jox ah moom moom jàmbaar la moo wóoree ni moom ni ni mu doon def ci famille sénégalaise noonu lay seeyee non moom kenn du ko kenn du du jugee yoon kër ca këram. Mariétou yow balaa ma lay conseillé xam nga lan laa lay wax bàyyil bu xëy di ma message naan man ça va célibataire du ma sa morom yaa may dégg. ah ñëpp lay yónnee message copier coller. bonjour les célibataires ba ne ko lii lan la madame Ndiaye yow tamit chéri taale l'international Mariétou dama koy ñaax rek man xam naa ni moom jàmbaar la te dina sëy jigéen bu baax la jigéen bu dal la jigéen bu duus la dama koy wax rek sëy moom yombul nga gumba tëx lu toog sëy te xam ne sa jëkkër bëgg na la ku la bëgg du la takk di la teral macha allah yàlla na yàlla barkeel. mais Ngoné est-ce que du yenn série yi nga xamante ne si aussi tamit ñu ngi koy gis biir Pikini production. muy muy doon ay série yu gudd est-ce que du looloo tax euh, critiques yi di bari parce que boo xoolee li nga xamante ne si moom mooy dikkoon su ma juumulee problème bi tamit ngeen amoon tout le temps dafa war a jeex dafa war a lii dafa war wax nga ko léegi loolu loolu est-ce que du yu gudd yooyu tamit nag tonton Aline est-ce que du wàññi série yi tuuti tamit nag affaire yi di gàtt daal comme yeneen yi comme téléfilm yi niñ koy defee. tonton Aline bu tonton Aline du wàññi dara xam nga lu tax du wàññi dara li muy bind yëpp ay histoire la histoire bi bu jeexul du ko wàññi. sénégalais li ma la wax rek laa lay waxaat parce que même question bi la dañoo amul patience amuñu patience ñoom ñooy seetaan ñoom ñooy wax famille sénégalaise amul benn épisode boo xamante ne am na moins d' un million de cinq cent de vues donc ñoom buñ ko bëggul woon duñ ko seetaan loolu la rek. mais gis nañu euh, depuis loolu tamit euh, fi nga xamante ne si moom mooy Pikine rek lan lay gis yeneen maison de production yi ñu ngi lay jéem a contacter wala ak yenn téléfilm yi nga xam ñoom ñooy kii ah ay Morodi ay Event Pro yooyu noonu ndax gars yaa ngi lay jéema a ci seen ay produits. non dama nekk sous contrat ak Pikine déjà mu ñun ay actrices lañ mën nañ jouer fu nekk mais dañu nekk Pikine nag ñu ngi fay gis suñu bopp bu baax bu ñu fa di nelaw sax ñu ngi ñuy fay waaw kon nañ leen xaar rek <laughs> nañ leen xaar rek ñu ngi ñëw ak yeneen incha allah. Hmm. Mhm. xaar ñu xaar ñu xaar ba ngoone Pikine yi ci yeneen i production ñu mel nan ñu ngi ñëw ak yeneen non non non non ay surprise la toog leen non toog leen non toog leen ngeen xaar tonton Alioune tonton Alioune ci ci rek lay ñëw ngeen xaar am na boo xamante ni mi ngi ñëw euh, bu bees tàkk-tàkk mi ngi ñëw dans les semaine léegi nii rek incha allah. mën a xaar lu bees tàkk loolu noonu. yàq man sax bokk ma ci waaye Pikine ngi ñëw ak ci lu garaaw loo xamante ni non na sénégalais toog xaar. Mhm. ñu xaaraat mel ni famille sénégalais. mbaa lu ko raw sax lu ko dàq. mais lu tax gisuñu la ci ci ci produit boobu ngay expliqué nii. waaw parce que ñun ñu ngi ñëw si beneen production mënuñu nekk si famille sénégalaise di liggéey ci beneen après di ñëw boobu. Ah. boobu mi ngi ñëw wax yeneen xale yu mën xale yu aay. série bu neex xam ne tonton lu mu def mu neex. Ah, macha mhm. bokkut ak njaago bii nii tamit. non non bokkut njaago beneen la. Ah. waaw beneen. macha allah mi ngi ñëw. <laughs> mais sa digganteeg ñi nga xamante ne si moom mooy maison de production yi wax nga ko kon tey jii Ngoné yow bu su ma la déggee bu baax a baax ku ci mel ni mm, Evenprod bu la woowoon amaana jamono yi doo ca dem wala li nga xamante ne si ñoom ñoom waa waa Marodi parce que da nga nekk ci li nga xamante ne si moom mooy contrat Aline Ndiaye. Ah, instant bi dama nekk sous contrat xam nga ku nekk sous contrat donc boo nekkee si contrat benn maison de production boobu noonu jeexul. mais ci ci ci téléfilm yi la ñuy des ba tey yaakaar naa yaa ngi suivre téléfilm yi daw fii Sénégal euh, ban ak ban ak ban. Euh, mm. <laughs> yaay deux point zéro ko doon seetaan j'aime trop boobu neex na ma uh-huh. ak Salma dama ko doon seetaan mais période bii nii damay daw rek euh, Cœur koy seetaan aussi. Ah, nañ seetaan Cœur Brisé nañ seetaan Cœur bu baax neex na. neex na. Mhm. noo ko gisee kër Brisé. neex na trop neex na j'aime trop. Mhm. mais gars wax ay ay ay ay bagages ay critiques nga xam ne wax nga ko comme léegi parce que boo xoolee ñoom yu ëpp yu ëpp yu ñu leen di waxal ñoom waa Cœur Brisé mooy yenn xeetu langage yi nga xamante ne si ñu ngi koy utiliser te nee nañ euh, seen ay produit gis nga xale yi dañ koy seetaan mag da koy seetaan ñëpp dañ koy seetaan ak yenn col yoo xamante ne si ñu ngi ko ciy def en tant que acteur en tant que sœur tey boo amoon conseil boo leen di jox ban conseil lay doon. mais Fafa boo nee acteur wax nga lépp acteur lépp lay joué lu mu war a wane rek da koy wane dama yaakaar ne que ñoom li ñuy joué série bi moo ko laaj rek moo tax ñu def ko. wala li nga nekk yow joué woo loolu génn si li nga nekk joué loolu. Fafa man doo ma dugal dama ni waa kër bi de ko jàpp foofu la li série bi laaj loolu la ñu def. ba ci yenn langage yu goro moo yi ñuy wax nii ak yenn sol yu sexy yi. bi mu laajee sama goro toroxal ma dama ko nangoo non non mais da nga wax famille sénégalaise na cœur brisé. ñoom dañuy joué li am seen relation yi loolu la rek. génn si li nga ne faafa génn si li nga ne Modou. li ma jaaxal mooy Jamra da leen a mënulul dara man looloo sama problème. ay faafa doo ma bàyyi. <laughs> <laughs> waaw léegi ci li nga xamante ni si ni euh, moom moom moom nga nekk si nga jugee sax moom laa xam muy famille sénégale wax nga léegi li nga xamante ne si moom moo la ci neex mais ci série yi rek ñu tëj euh, li nga xamante ne si moom mooy série yi série yi nga wax ni moo am Sénégal yëpp na nga koy seetaan macha allah tey ban série ngay gën a focus di ko seetaan ci série yi nga xamante ne si ñoom ñoom ñooy daw moo xam waa Marodi moo xam waa Pikini moo xam waa Even Pro sa série famille sénégalaise mooy sama série préférée parce que histoire bi xam naa ko. Mhm. te te lu ngeen si xamul ñun fa histoire bi yëpp xamuñ ko may ñun partie bi ñu doon bi ñuy joué. partie bi ñu joué xam nañ ko bu keneen di tourné leneen donc bu ñu koy seetaanaat day mel ni ñun joué wuñu lii quoi. Mhm. famille sénégalaise histoire moom marqué na ma man dund naa ko gis naa tournage bi nu mu méttee donc beneen série mënu ma gën a marqué que famille sénégalaise. Mhm. na la su ma su ay leçons de morale yoo xamante ne tey euh, macha allah boo duggoon ba sa néegu sëy di nga xam naka ngay gérer. waaw ah, dinaa sëy. <laughs> <laughs> dinaa sëy waa lan ngay wax soxna Batoor mi la sonaloon laqal la teg la terrorisme soxna Batoor de mi ngi noonu soxna Batoor ba ko wax dara soxna Batoor fin série bi yar nañ ko yedd nañ ko mais rôle la rek ma koy nuyu bu baax sama mag ji wàdd kaasa ma koy nuyu bu baax a baax baax Amina sama mag la sama xarit la mhm. mais dama seetlu benn affaire quoi ma ñëwee ba tey xaw ma jéey sama cadreur bu ñaaw ba xaw ma ndax seetlu nga ko wala déet xale yi léegi fi ñu far dañ fi na bëtul dara dara dara macha allah jëlal ma loxo bi jëlal ma loxo bi jëlal ma loxo bi man xale yi dama leen bëgg quoi parce que ragalunu ragalunu lii moom kenn du ko gis di laajte fan la far daal. te yow yëf yi far nga ko gisee. ah doon kon. bëgg la rek. bëgg mhm. la rek. Mhm. du far ñun Sénégal rek moo ñu ñor. lii bëgg la rek. Diouf Faye la lan nga nu mën a wax ci loolu ak lan moo tax nga bëgg Sonko. non mais Sonko dama ko gis bëgg ko loolu la rek. Hmm? gis nit bëgg ko dama ko bëgg mais moi je parle pas politique wax ci nag ndax ku bëgg Sonko moom xaw nga ñam ci politique ndax mënoo takk sa bracelet le patriote. yow bi ngay bi ngay mhm. Mhm. am na koo bëggoon boo génnee buntu école ba ñu la joxee sa xaalisu ndekki boo gisee photom da koy jënd taf ko sa néeg. Sonko am amaana jamonoom tombewul ak jamono bi ñoo ñu di yor affaire yi di jaay foto ak bi may bi may nekk école war a génn jël sama benn deux 200 jëndee ko foto daf ko sama nekk bracelet la tombe rek ma takk ko dama ko bëgg c'est tout flemme c'est yi xew nii yëpp wax jeeg tëj beeg yooyu noonu ba fan yi ñu gis ñu mu fal ki nga xamante ni si moom mooy euh, dimbali leen ma ci yéen ñi nga xamante ni si yéen ay patriotes yi maanaam actualité bi fan yi ki nga xamante ni moom lañ jiital moom la Sonko jël teg ko ci kanam. ban conseil nga koy jox. Ah, na yàlla lu wax ci politique. Diomaye Faye mii Sonko jiital teg ko ci kanamu patriote yi ni nañ ko jàppale loo ciy wax. takkuma bracelet Diomaye Faye de Sonko laa takk. mais Sonko mooy Diomaye Faye. danga ma laaj Sonko dama ko bëgg moo tax ma takk bracelet bi du ma wax ci politique Fafa je te jure ma wax ci politique jeex na dañ ci pare doo ci wax jàll ci leneen. <laughs> lan lan lañ mën a xaar lan lañ mën a xaar ci Ngoné ci ay projet ci lu bëri bëri bari bëri bëri. ngoone xaar leen ko ci lu bëri maa ngi ñëw macha allah ci yeneen incha allah toog leen rek xaar. Mm-hmm. non mais faafa xaar leen lu lu ngeen gis rek surprise moo si laak. même bu dul li nga xamante ni si nga nekk muy cinéma muy série bi. Mm-hmm. lan lañ mën a xaar ci ngoone leneen maanaam si ay projet bopp. Euh, déjà man damay damay jaay. Mm-hmm. am naa sama propre marque Déranger MS. damay jaay ay costume africain haute couture def yu toj yu rafet. vraiment ak yeneen ak yeneen. Mhm. tey soo amee conseil boo xamante ne si moom ngay jox ndaw ñi bala ñoo toj émission bi ban conseil lay doon. ñu gëm seen bopp rek ñu gëm seen bopp am patience xam ne àdduna lu jot rek yomb loolu la rek àdduna dara jaru yàkkamti. ñu bàyyi da nga tàggatoo ak mbokk internet Sénégal 7. merci à Fafa. merci sa technicien yi nga xamante ne ñoom ñoo déplacé wu ñëw fii et tout merci sama coach massali ak sama saal fitness bi nga xamante ne ñoom ñoo tax ma am sama forme bu baax bi ak téemee sa déranger bi xale yi insisté leen si loolu téemee teelan teelan téemee sa déranger maa koy jaay mmh. moo tee bi tee bi à tout moment da ngay nekk xale am 12 ans man maay def loolu ak sama coach bi nga xamante ne mooy coach Massaly coach Gervais coach Malick ñoom ñoo may coaché fii ñoom ñëpp laa sonal mmh. ñoo tax ma am léegi nekkatuma pataar. mais waaw kay yooyu à part là de tey gars yi nee nañ tey boo koy naan il fallait que ngay def sport sinon moom après dalay yàq-yàq bu doy waar est-ce que loolu. c'est mais amul amul amul benn benn benn benn euh, minceur produit minceur boo xamante ni mën nga ko utiliser sans faire d'effort physique amul man bi may jaay ak bi keneen di jaay moo si yam boo bëggee jeex ngay jël ay tee da nga koy booleek alimentation c'est la base. Mhm. ak sport sport mise à part dara santé bi mu lay jox rek. teint bi santé bi moo gën lépp ko ak santé mentale bi boo jógee sport da ngay firi tëdd rek nelaw. naka nga gisee célébrité sport bi la ñëw sees si tey. non mais émission bi moo koy toj <laughs> moo koy toj faafa émission bi moo koy toj. lan ngay wax yeneen acteurs yeeg actrices yi ñi nga xamante ne tey gis nañ Ngoné fii nga xamante ne si moom mooy salle de musculation ci émission célébrité sport ban conseil nga leen di jox pour ngeen ngeen sport. sport y a pas meilleur remède quoi franchement man moom xam naa ne année bi sport mooy sama coup de vraiment année bi laa ko commencé bëgg ko ba dof léegi dama dem ba dama passionné su ma dawee sax wala damay message sama coach yi naa leen tey dama daw bu ma ñëwee suba bu leen ma yërëm yooyu laa leen di def. <laughs> bala ñëw toj marié wala célibataire <laughs> Pape na ngaa a dégg ni dañu waa takk wala mës a kii ko ah, mais laajte leen takk ñu koy nëbbu ci suuf jéey lu ne am na fi oh, mais fallait que ñu fallait que ñu laaj ko xam marié wala célibataire parce que nag wax dëgg yàlla mu ngi def mbir wi non mais ku ñu takk doo ko nëbb quand même bu ñu ma takkoon dëkk bi ñëpp dinañ ko dinañ ko yëkk uh-huh. je suis pas fëgg wala lan mënta ñàkk sax fëgg moom mënta ñàkk waaw gars yi faw ñu fëgg nag ndax faafa nag dama jongu ma nag <laughs> <laughs> waaye bu ñu fëggee rek kenn du leen tijjil parce que loolu nañ buntu bi ba pare kii war a tëj buntu bi tëj na buntu bi ba pare faa fa jugal doy na euh, ami internet Sénégal set yaakaar naa gis nga li nga xamante ne si moom lañ leen indiloon tey ci célébrité sport muy ngoone bu baax a baax la woowee rek danga ñu nangul affaire yi euh, ñu ngi lay ñaanal aussi li nga bëgg si carrière bi yaa ko xam ko ci barke Seydina Mohamed euh, Dieye Massaba di la nuyu sama cadre sama chauffeur bu ñaawul bi ki nga xamante ne moom mooy Mamadou di jox ñëpp rendez-vous ci yeneen i émission ak yeneen i invité merci beaucoup